tey mbokk jullit yi ci taxawaay boobu ci tomb boobu di liggéeyal diine danañ ci joxe benn modèle benn waayu yàlla benn góor bu tudd Abdurrahman as-Sumayt Abdurrahman rajulun bi umma dañ ko jël ne moom nation la moom waa jooju moom kenn nation la noonu ngeen déggee ci alquran yàlla naan inna ibrahima kaana umma ibrahima rek nation la woon waaye abdourahman mi moom it nation la woon moom day tabib kowet yi médecin la woon bu dëkk kowet docteur kowetien araada an yakuna mashruuhu alxaas ad daawa ila moom projet lan la mooy liggéeyal yàlla woote ci yoonu yàlla looloo tax fa awqafa xayaatuhu li zalika mu jël dundam yëpp def ko fu jox ko yàlla amatul heure amatul minute amatul seconde dundam yëpp dane jox naa ko yàlla talatul dara ci kaw suuf lu dul liggéeyal boroomam mbokk jullit yi Abdurahmaan mii injaazaatuhu ana lan la liggéeyal yàlla projet boobu mu tëral ana lan la ci defal yàlla li mu njëkk a def mooy assasa jamiyal awnul mubashara muslim afriqiya soobiqan moom mooy ki formde loolu ñuy dégg muy laj na muslim afriqiya boobu tey nekk ci Afrique di liggéeyal yàlla moom mi Abdourahman moom moo ko tëral fondation bu mag boobu tey nekk ci Afrique nga xam ne mu ngi liggéeyal yàlla lu bëree bëree bëree bëree bëri moom góor googu di Abdourahman moom moo ko tëral waa ji mbokk yi aslama ala yadihi aksar min onze million sax afriqiya tuubloo na ci loxoom yónniwul kenn moom moo dem di daawa di liggéeyal yàlla ba onze millions personnes yu dëkk Afrique daal di tuub nekk ay jullit onze millions lu ko waral dafa ñëw afrig dëkk fi nekk fi vingt-neuf di tasaare lislaam lu tolloog ñeen fukki dëkk ci réewu Afrique yi moom Abdourahman dem na fa tuubloo na onze millions allahu akbar mbokk jullit yi abdourahman mii assumayt tabax na ci ay jàkka lu tolloog cinq cent mille jàkk abdourahman tabax na ko abdourahman yar na ci ay orfale ay jirim quinze jirim yar na leen Abdourahman tabax na ci ay teen 9500 teen ci ay pompe ci Afrique yoo xamante ne ndox lay génne nit ñi di ko jëriñoo Abdourahman def na loolu Abdourahman tabax na ci ay école 860 école yu jàngale diine Abdourahman tabax na ko Abdourahman tabax na quatre universités Abdourahmane tabax na ay centre islamique 204 centre islamique Abdourahmane tabax na ko mbokk jullit yi Abdourahmane mi tabax na ci ay hôpital 124 hôpital ak ay poste de santé Abdourahmane tabax na ko mbokk jullit yi ay internat tahfizul quran fu xale di mokkale al quran Abdourahmane tabax na ci 840 barab yu ñuy mokkale al quran Abdourahman daana fay saleer ci ay doomu aadama lu tolloog 3288 ay wootekat ak ay jàngalekat wootekat yuy woote jëme ci yàlla ak ay jàngalekat yuy jàngale lislaam mbokk jullit yi Abdourahman joxe na ci ay téere kaamilu alquran yoo xam ne moo ko jënd ci alalam tasaare ko ci àddina bi 51 millions téere alquran Abdourahman tasaare na ko ci àddina bi mbokk jullit yi téere lislaam nag ay téere rek yoo xam ne ay téere lislaam la Abdourahman mi def na ci so six millions téere six millions téere ci langue yi ci langue yi nekk Afrique lu tolloog six millions téere ci ay làkk yu bokkul yoo xam ne moom moo fay ñu traduire ko mu jël téere yooyu tasaare ko ci àdduna bi mbokk jullit yi Abdourahman mi as-Sumayt ndax gisatu nañu tey ci àddina bi ku tolloog moom yow sama mbokk bi may déglu wa anta ayyuhal muslim daani asaluka yow sama mbokk jullit bàyyil ma laaj la góor wala jigéen bàyyil ma laaj la yow maza qaddamta li diinik lan nga joxeel sa diine lan nga defal sa diine kam saa tabzuluha min waxtika li ajli diinik sa waxtu wi nga am rek laa jaguma sa alal waaye sa waxtu wi nga am yow jullit bii di ma dégg góor jigéen lan nga ci defal yàlla fi ngay yeewoo ci sa lal ba keroog ngay delluwaat ci kaw lal bi li nga jox yàlla ak li nga jox sa bopp ak li nga jox sa soxna ak li nga jox sa doom ak li ngay jox sa patron ak li nga jox sa soxna ak li nga jox sa borom kër ana lan moo ci ëpp ixwatal imaan amma masruuk allazi tawaddu an tax duma bihi diinik wa tadxula bihil janna gadan bi iznillah maa ngi lay laaj laaj bu mujj yow sama mbokk jullit lan mooy sa projet boo xam ne moom nga yaakaar ne projet bii moo lay dugal aljanna projet boobu lan la mbokk jullit yi Abdourahman a ngi nii moom bokk na ci li mu def mooy lan jël dundam yépp jébbal yàlla moom dafa def waqf fa awqafa xayaatahu li zalika dafa jël dundam yépp jébbal sunu boroom subhaanahu wa taala mu ne yàlla jox naa la sama dund jox naa la sama dund moom moo tax muslim afriqiya bi ngeen dégg ah association muslim afriqiya bi ngeen di dégg ci Afrique muy muslim afriqiya moom Abdourahman As-Soumaïd moom moo ko tëral te moom kowet la dëkkoon ab docteur la woon mbokk jullit yi 11 millions personnes la tuubloo. dëkk na Afrique vingt neuf ans te dox na ci ay quarante dëkk ci biir Afrique moom Abdourahman teg na fa tànkam tabax na ci jàkk yu dul jeex yar ay jirim bënn ay teen tabax ay école tabax ay université tabax ay centre islamique tabax ay hôpital ak ay poste de santé tabax ay internat fay na ay nit ci alalam allahu akbar mbokk jullit yi tasaare na ci ay alquran cinquante millions téere alquran tasaare na ko ci àdduna bi lii mooy diine lislaam ab jullit nii lay mel dangay nga yëngatul yàlla soo amul alal am nga waxtu soo amee waxtu am nga temps pour liggéeyal yàlla am nga xam-xam am nga waxtu am nga alal am nga am nga ay tànk yoo am nga làmmiñ boo am nga ay loxo yoo yëngatoo lépp dañ ko war a jox sunu borom subhaanahu wa taala ndax loolu dong lañ fi am amuñu fi leneen lu dul lool mbokk jullit yi kenn ku nekk ci ñun war naa góor góorgóorlu mel ne Abdourahman as-Sumayt waa ji nga xam ne nësër na dundam jox ko yàlla tabaraka wa taala bal sax dafa toxoo fa mu dëkk jóge kawat ñëw dëkk Afrique dëkk fi nangami at yi ma leen wax loolu la dëkk Afrique vingt-neuf ans la dëkk Afrique dem na ci quarante dëkk ci Afrique tasaare tuubloo un million millions personnes tuub na leen bàyyi fi benn association islamique boo xamante ne mi ngi liggéey ba fii may wax ak yéen ku dem Casamance dina ko fa fekk boo demee Gambie fekk ko fa fu nekk ci partout ci àdduna bi soo fi demee ba fii ci Sénégal association boobu mu ngi fii di liggéeyal yàlla fii ci Dakar association boobu mu ngi fi di liggéeyal yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla nangul nangul ko yal na ko yàlla tabal aljanna firdaws liggéeyam bu mu doon liggéeyal yàlla yàlla bu ko yàlla neenal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.